salaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi nga xam ne ñooñu baaxoo di bàyyi xel waxtu wu ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer ñaar ñaar fukki fan ak juróom ci weeru wala fu jot eh, tey jii mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru rajab eh, ñu doon séentu weeru shahbaan di weeru baraxlu ànd ko ak commission bi nga xam ne ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha ñoo ko baaxoo di ko séntu ci njiitul sëriñ Mouhamadul Mamoun Bousso imam waaye feg feggoo ak waa daayira Muxadamatul Xidma waaye ak sëriñ abdu Diop imaam mi nga xam ne moo yore kàddu mbooloo mi waaye di lëkkaloo ak sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdoul Khoudous nekk ca Daarul Moxti waaye ak sëriñ Modou Mbacke si mi nga xam ne. moo jiite mbooleem représentant xalif général des mourides yi nekk ci région yi ñoom ñëpp ñu àndandoo waxtu wu ne di ko teewlu euh, saa yuñ ko teeloo ba waxtu wi nag dana danañ waat ak kër sëriñ Muntaxa lépp loo xam ne jote na fa ci ndigal sëriñ Abdou Diop imam dana ko jottali bokki julli yi ak bokki taalibe yi kon dañ koy bàyyee kàddu gi mu leeral ñu ndigal li nga xam ne moo bàyyi koo ci sëriñ bi tey jii di séntu bu njëkk ci weeru baraxlu su ko defee ñu maasi déglu sëriñ Abdou Diop ni kon alarba alarba ji mooy benn fanu baan kon suba ci talaata ji dañuy mot dañuy mottali weeru rajab ci fanweer yi kon tey la woon ñaar fukki juróom-ñeent suba ci suba ci talaata ji mooy fanweer mooy fanweer fanweer la fan rajab kon nañ nañ ko xam bu baax a baax kon ñu xam ne léegi alarba mooy benn fan noo ñaan nag mu yàgg fi lool te wér ba lim ci yoon wi lépp mu àggale ko ci dara Sëñ Tuubaa tan yàgg ci gannaaw moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu maaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu kon mbokk yi ñoo xam ne weer wi kon benn panneau àllarba lay doon su nekkee benn panneau àllarba nag kon màggalug daarul moxti moo nekk ci sunu kanam ci événement yoonu murid yi kon fukki fan yi ak juróom dëppoo ak màggalug daarul moxti mooy doon àllarba kon àllarba lay doon incha allahu rabbi yàlla na sunu borom may nu fekkee ko eh, te liggéeyal ci Serigne Touba mu gërëm ko te ñu weesu ko ci ak jàmm. ñi ngi ziare mboolem njabootu maam Thierno Ibrahim borom Daarul Monti gépp di ko teg ci loxol Serigne Bassirou Abdou Khoudous seen mbokk taalibe la Fallou Galass Syll fii ci jumaa ju mag ji nekk ci dëkkub Serigne Touba Xaadimu Rasul bii di Touba àndoon ko ak euh, commission bi seentu weer wi ci njiitul euh, Serigne Mourou Mamoun Boussa ànd ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ak Serigne Abdou Diop wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.